jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen bu baax a baax di wax na maa ngi fii ci géejuwaay fekk si ki xam te ne mooy réparé mbokk yi ñu fàttali nañ ko doon na bëri ci combat bi nga xam te ne mooy ñaar France soq bi bëri woon na ci diggante mooy Anaconda mais ñu gis euh, mu am ci defet diggante ma Anaconda mais man nag dama koy wax ndax combat bi nañ euh, réparé ma xamoon réparé ma doon gis gisuñu ko keroog bi mu ñëwee ci digganteem ak Anaconda naa la. waaw Ousseynou ñu ngi lay ginnaaw baatu onze billahi min seytaan rajim bisimilah rahmaani rahim dañ sant yàlla julli sant bi sant suñu ñaari waaju naan jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jawar ak maam Cheikh Ibrahima Fall jërëjëf Serigne Saliou sama yaakaar tey ak ëllëg jërëjëf di Serigne Saliou sama yaakaar maa ngi waa Guèye yëpp di nuyu waa Wasaare xam nga di naan Sénégal yàlla na fi jàmm yàlla amiin mais man mais man bi combat bi xamee wu ma la hmm. xaw ma la moo xew parce que combat bi gaaw na comprendre lu ñu daal nan la demee waa man mbër mi sax comprendre ma. man waaw man mbër mi sax comprendre ma. waaye tamit dama jàpp ne war a daanu la waa lépp lu ñu waroon def def nañ ko waaw jaam ak bëgg-bëggam sunu borom ak dogalam quoi. Hmm. suñu borom moo namee woon ni keroog xam nga réparé day daanu. mais da da nga ñu ci bëri dañuy laajte. Hmm. réparé dafa entraîné wul wala boog anaconda da ko ëpp doole. moom moom mi jàppanteeg man xam na ni combat bi moom doole ak sëñ Saal combat bi sama combat yëpp si la doole. waaw waral combat bi gaaw. waaw excès de confiance si la bokk. waaw comprendre nga. Hmm. la ma lañ ma waxoon su ma ko bëree. donta du mun na sax xam nga bañ a mel nii quoi. Hmm. waaw ay tamit xam nga soo waree daanu daal. Hmm. munoo def leen leen leen baroo daanu yàlla moom moo digal jour damay daanu de yaa mënu ma si dara. Euh, nga bëree anaconda daan la. Hmm. boobaa léegi parce que fan yee passé euh, dañ doon déggante nga ne ma da dem CNG lan moo undu woon sa wala euh, dem CNG. Hmm. lan dañ la convoqué woon wala. non sama dem CNG man maa def rapport quoi man maa bind rapport. rapport waaw ndax dama am dama am ay jafe-jafe ci làmb làmb doom si am ay jafe-jafe xam am na su mu ne de su ay jafe-jafe jàpp na mën nañoo jàpp ne sama combat bi sax parce que ma daanu moom moo taxaw li kenn xamul mhm. non du kon anaconda dafa ma daan jël bu bu set wicc bu leer nañ bu leer nañ bu amul benn wérante di ko ñaana yàlla na ko ndam ni jik mhm. comprendre nga mhm. ba ma dalee bëre ba léegi Cissé du ma ne sax su ma nee CNG yëpp damay tooñ waa CNG Cissé Cissé mu nekk CNG Cissé nekk CNG te toog ci bunt bi bama ma dalee bëre ba léegi chaque jour mel ni ay jafe-jafe ci làmb te ñun ñun ñooy acteur principal kon ñun dañoo war a mun a may jàmm quoi. comprendre la ñu war a mun a may jàmm waaye Cissé heure bu moo ñëwee ci làmb su ma ñëwee sax dix heures ci sax mi na cinq heures laa ñëw. non lan moo man man xaw lan moo lan laa ko def man en personne taxaw naa ne ko lan laa la def man su fekke daal lu ma def wax ma ma jégalu la su fekkee tamit dama la def loo xam ne lu ma yëgul la tamit expliqué moom mën a comprendre comprendre waxuma ay benn wax joo xamante ni. yu kenn xam am na seen benn boo xamante ni lamb ja maa fa jiitu man man maa jiitu lamb ja mu ñëw mi ne damaa tardé bañ dagg ma dagg ma boo dese deux mille cinq mhm. ma boole li ma neexee li ma neexee jël dëxëñ dagg nañ pare mënutoo si dara ma boole li ma neexee li ma neexee jël dëxëñ léegi lan mooy ndayu man sama combat bi passé ma ñëw ba lamb ja de un mhm. waxuma A nga jëm waxuma a nga jëm avant mooy dugg ki ma àndal sol benn tubay téere comme genre yu ñuy ñaw léegi quoi. ñu mhm. ko tubay téere nga sol. te du tubay téere mu fexe ba similoo ko booy bi. Mhm. yaa ma dégg mu fexe ba similoo ko booy booy bi similoo nga dugg. Mhm. moom su ma waxoon ni man sama cumbukaay beneen côté laa war a teg. Ah? lu ma ko si def dama kaa tooñ. waaw waxuma dara mu bàyyi ba ma def sama musique ba jël sama cumbukaay teg mi ne doo ko teg fii. mu ne cumbukaay woo toog fii. waaw ne foofu war ma fi toog xaw war dem xaw ma aw nu ko si waxee noonu comprendre nga. Mm-hmm. léegi moom est-ce que moom am na droit di samay saako samay bagage am na si droit bi nga xasee teg bagage ba noppi. waaw est-ce que am na droit di laal samay saako loo xamante ne soo ko waxee dañ naan xama sa parce que dafa réew wala yu kenn xamul am léegi man ba mu laajee seen bagage ko bëmax. ah dafa bëggoon jël saako yëkkati ko fi ko teg. waaw xam nga loolu amu si mm-hmm. li ma def ba teg ko foofu xamu ko li ma def ba indi ko foofu xamu ko moom na yore kayam rek. Mm-hmm. yaa ma dégg mu jël sama bagage di ko dindi may wax mu xama ñu am ci ay jafe-jafe mu dem woo ay ay ay policier woo ay policier dañu war a jël si foofu policier tamit xama ñoom ñu ñëw taxaw dañoo ñëw taxaw ne du ma du ma dugg man ma jël bare fukk dugg après les par la suite bari fa bari fa gars yi wax mu jël sama bagage ko foofu te loolu yoon waru wóolu waru laa sama bagage mhm. man bind rapport dugal CNG CNG man moom ñu convoqué ñu man ak moom lañu ñu convoqué mhm. moom ñëwul bi ñu leen convoqué. ba ñu convoqué dañ ñu convoqué nañu xam nga 11h pile fa la ñu war a fekk. Mm-hmm. man 10h et demi fa la mu fekk ma toog di xaar. na kuñ dul xaar da ngay xaare quoi. Mm-hmm. man ma toog di xaar. ba midi ah ba midi di 11h lañ ma lañ bind ci lii de ba midi maa ngi toog di xaar. Mm-hmm. billaay wallaay ba midi maa ngi toog di xaar moom ñëwul. ñëwul léegi ñu woo ma di laaj moom ñëwul ba pare envoyé vocal. vocal la envoyé bi mu ñëwulee. vocal la envoyé la envoyé Njàmbe. man ma wax li ma li ñu jotee man moom A ba Z mu envoyé vocal léegi ñaam bi a jël toor jox ma. loolu mooy la envoyé vocal ne ci dëgg. waaw man maa envoyé vocal ñaam bi déglu ko rek ne ma yaa nekkul ci dëgg man tam man ko yow yow yow li nga wax foo ko teg wala ñun da ngaa foog ñun xam nga ñun jànguñu su doon benn fa sax toog nañu ci ban école. Mm-hmm. nan la ñuy àttee nit xanaa leen leen nangu naa ko. Mm-hmm. koo xamante ni criminel am nga am nañ droit sa ginnaaw. Mm-hmm. yu am dégg waaye nga convoqué ñaari nit kenn ki ñëw ki ñëw nga bu ko jox toor man kenn nangu naa sax nga ne kii ñëwul après dañ leen woowaat waaye ñu yoon ne xam nga sax parce que yow yaa tooñ ndax kii mag la kii kenn mucc ko léegi kenn xam kooku li muy def si làmb ji kenn dakaa wax man li muy li muy def mbëri du ma man du ma ko def ndax man bokkal bi bokkal bi ko mbari di bokkal su ma ko naree bokkal ñëw bokkal ko sama yaay barke Serigne Saliou bokkal bi ko li ñu bokkal su ma ko naree jox ko sama yaay comprendre am na ñeneen ñu ko gën a yelloo ñu nekk si làmb ji que moom man du ma ko ko def moom mu ngi muy dégg bu baa te lim muy def su ko bàyyul barki Serigne Saliou Mbacke xam naa ne man moom dina ci am problème boo xam dinaa fa jaare bàyyi làmb yorul nag sama wërsëg de yàlla ma yor sama wërsëg comprendre sunu borom fépp xama fu sa wërsëg nekk di nga ko jot mhm. waaye moom lim moom Cissé Cissé laay wax de barke Serigne Sall li may def na ko bàyyi su ko su ko bàyyi dinañ am jafe-jafe gu métti. mais est-ce que tamit doo toog doo ànd ak ay mag wala boog ànd ak sa mag mi nga xamante ni mooy Marley dem toog moom tête à tête ngeen waxtaan yéen ñaar. Hmm. est-ce que bu ngeen ko defoon du du du ngeen trouver terrain d'entente. maar la fekk na lim may def keneen nag keneen fekke na lim may def du benn yoon du ñaay yoon su doon benn yoon sax ma mun naa ne xam nga lii la quoi erreur la. Mhm. su doon bi li mën naa ne heure la waaye du benn yoon du ñaari du ñetti ba ma dalee bëri ba léegi sama huit combat yëpp la ma ko def huit combat laa bëri te yëpp def na ma ko huit kon xa kon loolu yéen kon lan lay nduru wala ñun wala wala ñun ñun ñun ñun ñun ay ay mbalit lañ wala nu mu demee noonu quoi man man en personne man sama dignité dam koy xeex musu maa ñëw ci làmb bëree ma fekk ci buntu bi di ko ñaan naan ko même ma dugg musul am. damay dem dagg sama ticket toog kaw heure wàcc su jotee mën naa jaar si bunt bi wàcc am na ñoo xam ne séeqal naa ak ñoom loolu quoi ci làmb am ñoo xam ne naa ñoom loolu ci làmb comprends nga musuma ko ñaan musuma ko ñaan ci làmb musuma ñëw ci làmb di bëre ëppal musul am liñ ne ma temps ngay dugal temps laay dugal ndax bëgguma tooñ kennu waaw ndax tubaab wax na ko respect soo bëggee jox la cër da ngay joxe cër mm-hmm. man dama ko jox cër dama delloo cër bi te cër bi man nangu naa ko dama bàyyi tout tranquille quoi moom moo gën a rafet balaa leen di am. mais fi mu toll nii gannaaw gannaaw gannaaw loolu lépp jàll na. Hmm. fi mu toll nii promoteur yaa ngi wax wala waxaguñ. waaw wax nañ moom wax dëgg faa ñoo ngi wax moom. Hmm. waaw promoteur moom wax nañ bu baax moom barke Sëñ Tuubaa. heure yi waroon na fekk sama combat taxaw sax. léegi looy xaar. non du ma may xaar si mbër yi la. ah mbër yi am na mbër boo dox nañ sama combat maam moom bañ ne léegi ñu jël avance daanaka deux ou trois jël avance. ban loolu. Siteu ma amul Siteu bu nga sama combat maa ngi ñu ko dox. mais sa diggante ak Liss pourquoi pas mu taxaw. parce que fi mu toll nii gannaaw ñoo ngi ko doon wax amagul fi mu toll nii Liss problème moom mooy adversaire. Hmm. man daal maa ngi fi pour mbër yëpp bàyyi ma kenn maa ngi fi pour mbër yëpp. pare nga pour bëre ak ngi fi pour mbër yëpp man benn mbër laa fi bàyyi si àdduna. muy ban Gorofil. kese kese te Gorofil aussi maa ngi koy encouragé. maa ngi koy encouragé baa baax a baax ko xa di ko wax làmb noonu la. kuy bëre moom mooy daanu quoi yow sama doomu ndey nga sama xama sama yow sama deret nga quoi. yàlla na ko yàlla defal jàmm moo Lat Diop ah. gis ngeen mbokk yi tey euh, Répa lañ seet si waxtaan ak moom ci làmb waxtaan ak moom ci nga xam ne ci la jot a jógee ak li nga xamante ne moo nekk ci kanamam kàddu yu mujj yi lan la. kàddu yu mujj yi di santaan ñëpp di gërëmaan ñëpp. comprendre nga di sant ñëpp aussi di gërëm ñëpp bàyyiwuma kenn waa diaspora bi. waaw diaspora bi ñoom ñoom dañ ma jël rek xam nga def ma seen xol barke sëñ Tuubaa te xaw ma lan laa defal dañ ma xam nga ñoom ñëpp ku lim juum ñoom ganaa deef gannaa seexu naa tolloo xam nga kot su baakar yi gannaa Alain ñoom ñëpp barke Sëriñ Tuubaa di sant sama mag ju baax ji muy Soxna Diop gis nañ ñun lekk duñ ko jënd dañuy ñëw rek mu defal dañ baax ñu lekk wër na sëñ Tuubaa waaw dafa xam ne dañoo bëgg lekk moo tax dañu ñëw defal bi mu baax ñu lekk wër na sëñ Tuubaa gis nañ dañu am combat deux mois wala lu duñ jënd reer duñ def daana moom moo ñu defal lépp. di sant waa Géewaay yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp. di gërëm ñëpp aussi sama secteur fii de lendemain ko euh, lendemain tamxarit. dañuy def fii ay annuel yu mag yu mag sant quoi yu mag. waaw Anaconda maa ngi la ci invité. Anaconda maa ngi la invité ci cant yi bu baax a baax a baax. ak euh, kalaamu 22 ans ah, maa ngi invité cant yi bu baax a baax a baax a baax a baax. Gabaar suma gannaaw maa ngi ko ñaanal ndam ci combat bii nii. Hmm. waaw maa ngi ko ñaanal ndam ci combat bii. ministre Amadou Hott maa ngi koy sant bu baax baax baax baax di ko gërëm hmm. barke Serigne Touba ak madame xot mi may mun a maa ngi koy sant bu baax baax di ko gërëm hmm. ma kenn Ibou Ndiaye séeri gaz xam nga maa koy nuyu tamit di ko sant Ibou Ndiaye barke Serigne Touba lu mu mën ren yàlla mun déwén lu ko ëpp ci barke alxuraanu karim moom suma nit la suma lépp la daf may jàppale barki borom Touba daf may jàppale bu baax a baax a baax a baax a baax waaw maram xot sama combat bi xaalis bu bëree bëri bëri bëri la ma jox barki Serigne Touba man li ma koy ñaanal jàll na ko yàlla defal jàmm ba lépp lu mu bëgg rek suñu borom defal ko ko sama yaay maa ngi koy sant bu baax a baax sama yaay maa ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm waaw sama yaay maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko gërëm xam nga di sant ñëpp képp ku doon jàppale sama combat rek xam nga maa lay sant bu baax ku ci mel ni Dambay xam nga Galo Modou Ndong xam nga Baara Baara Fall maa ngi koy siyaar bu baax a baax a baax lamb Pape Thiam. suñu waa écurie ñëpp bàyyiwuma kenn kenn kenn coach xama jegaan boo Thiam Iba di siyaar ñëpp sama coach Cheikh Thiam maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm te xaar ko àjjana biyaay Seydina Mohamed di siyaar ñëpp daal àdduna maa ngi koy siyaar bu baax baax a baax. gis ngeen mbokk yi tey Repa lañ xool si woon waxtaan ak moom ci làmb di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen mbës Wassare làmb jaa ngeen jëf.